mbokk yi tey li ma ñëw tey pour bëgg see waxtaan ak muy jëm si wàllu jaaro aqiiqa xaalis bu ñu waxee aqiiqa nag jaaro xaalis piir lay doon nga xam ne dañ koy liggéeyee si turu nikki ak turu yaayam bu fekkee ne sa mbiru bopp la da nga bëgg aaru danga bëgg itam am kaaraange gu wér sa bopp danga bëgg ubbeeku danga bëgg lépp loo xam ne yaa ngi siy liggéey wala di si yëngatu yàlla defal la si jàmm ak teraanga ak tawféex ndaxte si jamono yooyu lañ nekk nit ki lu lay yàqal dafay yomb mun nga génn si biti ñu bëtu la léegi wala ñu làmm ñu la léegi wala nit jug sax def si yow dara ba nga xam ne yow lépp loo ut rek ñaareel day faral di doy waar sooy boo dugg mu am ay jafe-jafe diggante boo nekk mu am ay jafe-jafe toujours rek da gis ne problème boo wàcc rek yëgaat beneen problème boo wàcc yëgaat beneen loolu lu si gën a bëri dangay xool sa jëmm xool la lay tënk ndaxte balaa nga naan naam da nga fay nekk kaaraange moo jiitu si lépp. ndaxte jaaro yi mu nañ ko liggéey si wàllu kaaraange mun nañ ko liggéey si wàllu ubbeekaay mun nañ ko liggéey si wàllu diggante danga nekk si biir néegu sëy moo xam kuy góor ki wala ko jigéen ki nga bëgg sa sëy neex doo perte sa jëkkër wala doo perte sa jabar am na nu ñu la koy liggéey léegi nga di ko takk mun naa nekk chaîne mun naa nekk jaaro wala tey jii ni nga am koy bëgganteel bëgg sëy am seen diggante mbir mi xaw naa yàgg xaw naa yéex wala nit ki bëggu yaa ngi bëgg nit ki yàlla xir ko si sa bopp yàlla Euh, fexe tey ba nit kook noonu bëgg la jox la bopp jox la cër su ko defee mën nañ la ko liggéeyal itam si fànn yooyu noonu maanaam daal si kaw gàttal yow doomi aadama bi yaay wax li nga bëgg man kat nangam laa bëggoon soit nga bëgg ko si côté jaaro ñu liggéeyal la ko si côté jaaro wala ñu liggéeyal la ko si beneen fànn mu ne la ko defal ay sangat wala ay suuru wala yu demee noonu loolu nag mu ngi mu ngi dépendre si nit ki bëgg-bëggam ndaxte ñu dañuy bëgg dimbalante yéen ndaxte xam-xam yàllaa koy joxe Euh, lépp loo xam ne yàlla xamal nañu ko daal dañu ko ñëw séddu ko ay yéen chaîne itam mu ne leen defoon na chaîne am na ñoo xam ne chaîne la tàmm am na ñoo xam ne bëgg ñoo takk ay bagg yoo xam ne ay jaaro yoo xam ne day rëy dañoo bëgg mu simple yooyu yëpp nit bu ñu déggantee moom mënuñu ko wax gis nga li ngeen gis ni jaaro la yu ànd ak juróom-ñaari sangatu kaaraange ak juróom-ñaari sangatu ubbeekaay si ay sunguf moom laa teg noonu di leen ko léegi nag am na ñoo xam ne dañ may woo di ko bëgg di bëgg ci jaaro yi macha allah waaye am na ñoo xam ne dañu am moyen moo tax ma ci waxtaan ak euh, bijoutier bi nga xam ne moom mooy faral liggéey ay jaaro ma ne ko comme yàlla dafa dogal damay joxe ay secret si YouTube bi ak TikTok beeg fépp nit ñi dañu siiwul ñu leen jox ay secret si wàllu ubbeekaay ay secret si wàllu diggante ay secret yu jëm si wàllu kaaraange am na ñoo xam ne dañuy soxla jaaro mais duñu am moyen ba moom yàlla dogal na waxtaan nañ si ba mu ñu wàññi prix yi ba nga xam ne képp koo xam ne itoo na ko te soxla ko daal bu soobee yàlla dinañ si dimbalante yéen ba ngeen mën koo am ndaxte doomu aadama bi war nga aar sa bopp war nga aar sa kër war nga aar sa sëy war nga aar sa diggante war nga aar sa appartement wala sa place bi ngay liggéeyee wala say njaboot kon loolu nekk lu ñuy négliger àddina du lekk ak naan rek am am bi la yàlla jox doo ko jël di si lekk di si noos di si naan ëllëg boo feebaree jug fu nekk nga dugg fu nekk nga génn fu nekk nga fëgg fa sëriñoo sëriñ nga dugg fa te loolu mënoon nga koo régler bu yàgg kon képp koo xam ne soxla na ko mën ñu yónnee message wala nga wooñu si 76 605 63 19 am na whatsapp bu ñu déggantee nga wax ñu sa soxla si kàttanu yàlla suñu borom mi nga xam ne moom moo mën te mooy mottali lépp dina si def suñu këm tilaay kattan kon yal na yàlla ar ñu sàmm ñu faj aju si zaar si baatin bu suba jàmm incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu